mbokk yi ak xaj ñu nuy den jaajëfal euh, si teewlu bi seen euh, émission face to face euh, dooraat nag ñi ngi fii nga xam ne mooy ci VDN bi VDN bi nag defe naa bokk na si immeuble yi fi gën a fës di permanence du parti démocratique sénégalais foofu lañu ñu jël si waat nag ñu amaat mbégte dajewaat nag ak ki nga xam ne mooy avant tout nag maire de de la ville de Dagana nekk également coordonnateur national du parti démocratique sénégalais di Oumar Sarr euh, euh, grand ñu lay nuyu. ok bisimilah. waaw euh, ñu ñu dellusiwaat fi nag fas yéene sekk ak yow waxtaan. di la nuyu di la bàyyi noo Sénégal yi lay seetaan. bi bisimilah fii si permanence su parti démocratique mhm. ñu kontaan trop tey lu lay lu lay recevoir. Mhm. fii mhm. yow xam ñëpp xam ne sunu. sama jigéen nga. Mhm, nga yàgg ah yàgg nañu. Euh. vraiment ma kontaan bu baax baax euh, da nga fi ñëwee. voilà alors grand euh, ñu démarrer ak sa portrait yow nag yaa ngi juddoo quelle surprise Dagana. <laughs> Mhm. donc 12 janvier 1958 yow moom dañuy anticiper happy birthday bi rek ndax ndaxte question de jour la sa profession nag ingénieur informaticien nga bu ñu dugg ci sa CV xëy na émission bi yëpp du ci doy ndax. ci wàllu euh, euh, jàngal nga partout un peu partout dans le monde ah lii di informatique et suñu waxtaan yu yàgg sax mës nga ma xamal nga sénégalais yi ne am na Roissy Charles de Gaulle am na logiciel bu ñu dafa xam ci affaire bagage suma ma juumulee mhm. ah euh, euh, euh, yow yaay ki ko concevoir et également nga nekk maire de Dagana de 1996 à nos jours sa réussite bu gën a mag mooy succès bi nga am ci wàllu jàng bi ak i tamit ni nga demee ba ñaqante ak gars yi ba nag jot nag ci li nga xam ne mooy waalo ak i tamit leneen li nga xam ne moo lay bégal mooy Euh, sa doom yi euh, euh, macha allah sa déception bi gën a mag mooy sa waajur bi jigéen bala moo génn àddina ni mu ñàkkee li nga xam ne mooy gis-gis bi ni mu ñàkkee neex te glaucome jaar fa ak itamit ni nga ñàkkee lenn ci sa ay jegeñaale sa ay xarita sa ay mbokk bi ci gën a récent mooy daanaka bañ ne bañ tolloo ci élection locale yi nga ni nga ñàkkee sa ñett militant amuloo nag ay regret sa plat préféré tamit euh, amoo ko daanaka yow nay tàng te neex rek sa musique préférée n'est-ce pas <laughs> mooy jazz ak blues mais si jazz ak blues est-ce am nga ay ay ay euh, ay préféré non bëgg naa man xam nga man bon dégg naa musique yu bëri bëgg naa leen mais yii laa gën a laa gën a laa gën a préféré. amoo particulier yàlla préférence daal moom moom ngay bañ. <laughs> alors jamono ji euh, Oumar fi ñuy jeexalee portrait bi euh, lan moo la gën a énervé ci réew mi ñu bokk di Sénégal. waaw Sénégal nag man. fen ak sos yi moom ma gën a moom ma gën a moom ma gën a jaaxal nguur gi du wax dëgg quelquefois seen mbokku journalistes yi duñ wax pour dëgg euh, si même grand place yi quelquefois ñu sos ay mbir mhm. euh, je pense que nit balaa muy wax dara il faut que mu mu xam ko mhm. mu wóor ko mu xam ko mhm. loolu moom moom bokk si yu ma gën a naqari si Sénégal waaw loolu moom euh, du yow danga la ñamu naqari yi bari na ndax sos ak sos ak dendandoom moom ku ko làmbool ku ne doo bëri ay soppe mm. euh, kon Oumar lii ak yeneen mooy euh, li ñuy euh, tas nag ci biir waxtaan bi léegi la le temps ñu dem toog rek xaw a capp cappalaa tuuti daa dellu si grand ñu dem ah, <laughs> merci Oumar Sarr secrétaire ah ma ne Amine wala <laughs> <laughs> yaa ngi reetaan man ni ma commencé moom day la waar coordonnateur eh, parce que j'ai pas envie de sama mbokk waalo waalo nga j'ai pas envie que misil yi jógee fu ne si yow nañ nekk nañ wax li nga doon macha allah donc coordonnateur euh, euh, euh, parti démocratique sénégalais dañu commencé émission bi ak actualité bi nga xam ne dëgg-dëgg taal na daay bi seen diggante ak nguur gi muy ArcelorMittal ak Petrotim ci mbir moomu nag Euh, ñun dañu xamul fan lañu euh, buddi tunnel bi kañ lay ñëw ndax euh, président Wade génn na moo njëkk a génn ci meeting joxe ay ay information ci ginnaaw ga moom ak Aliou Sall en tout cas ñu joxante ay ay defante ay ni koy waxee passe d'armes par presse interposée premier ministre génn na tontu na et ci ArcelorMittal teg ay preuves comme ni ngeen ko bëggee woon et ci euh, Petrotim mais ginnaaw ga yéen génnaat ngeen ne da ngeen def pétition euh, da ngeen aussi porter plainte contre l'État du Sénégal donc finalement yéen ngeen bëgg <laughs> waa PDS. d'accord jërëjëf euh, Aïssatou bon xam ngeen ne quand même nguur gi xam nañu ko bu baax a baax. Mhm. xam nañu Macky Sall nekkoon ci PDS lu lu yàgg. Mhm. nekkoon. Euh, si gouvernement sax gouvernement wu euh, Ablaye Wade yi presque huit ans euh, jëm jëm neuf ñu xam ko bu baax mu nekkoon numéro deux wu PDS ñu xam ko aussi bu baax si liggéey bu mu doon bu mu def. Mm-hmm. su jëkk saa rek jël pouvoir bi yàlla mooy joxe nguur. Mm-hmm. yàlla jox ko nguur gi mu xalaat ni lu mu war a njëkk def mooy tas tas wala tëj. Mm-hmm. Euh, PDS moo tax euh, mu ñëwee jël nguur gi rek quelques mois après mu ñëw commencé tëj ñi convoqué ñi euh, si biir campagne électorale sax législative yi mu arrêté ñenn ñi ñu jël avion gis ngeen affaire Ousmane Ngom boobu. Mm-hmm. ñu jël avion jël ko Kolda yooyu yëpp ñu ñu ñu ko ñu ne ni kii vraiment bëggul jàmm bëggul jàmm ak nun alors nun ñoo ko gën a gën a jóge ñoo ko gën a xam. Mm-hmm. Euh, bu loolu amee ñu xam bu baax aussi ñu xam aussi nguur nu muy nu ñu bàyyi foon yenn yenn dossiers yi euh, bàyyi woon fi dossier euh, ArcelorMittal mhm. bàyyi woon fi dossier Petrotim mhm. ñu xam aussi nu mu demee woon mhm. et ñu xam nu ko nguur gi jëlee soo xoolee d'abord ArcelorMittal xam ngeen nun bu ñuy négocier ñu négocier euh, bu dul rompre nu ñoo décidé Abdoulaye Wade moo ni comme Mittal daal deful lu mu promettoon mm-hmm. lu mu digoon Sénégal moom tabay arrêté contrat bi parce que xam nga suy waxtaan bi demoon sax ba nii tabay investir Sénégal lu doy cinq cent mille milliards xam loolu lu bëri la mm-hmm. bon ay écoles yu mu waroon def ay chemin de fer ak yooyu yëpp yu bari yu mu doon def ni loolu la bëggoon def fii si Sénégal bu xamee ni defu ko te fa yéenu ko def mm-hmm. ñu ni nun daanu euh, arrêté contrat boobu Ah, bu ñu koy jox sax ñoom wax nañu dëgg bu ñu koy avant ñu ko jox joxoon ko keneen d' abord mooy Kumba ressource boobu Afrique du Sud après ñu nii euh, ñu nangu ko ci kooku jox ko Arcelor pour euh, programme bu bu bu ambitieux boobu bu mm-hmm. amoon solo boobu mu prévoir pour pour pour Sénégal bon bu ñu xoolee maintenant mbir mi ñun bu ñu fi jógee demoon nañu bay tribunal arbitral ñu gis ni euh, ñoom bu ñu ñëwee du ñu continuer d' abord du ñu commencé continuer yoon boobu ñu tracé woon ba saa rek ñu jékki saa changé jël avocat boobu nekkoon si ñu ni ko yow euh, kay ñu fay la euh, nga toog jël benn avocat ba nga xam ne ñëpp xam nañu ni affaire yu salte rek la dugg daal xam ne moom moo jëloon par exemple mais moo François euh, Meyer mm-hmm. moom moo duggoon si affaire wu Gabon am na benn oto bu mu fayloon parce que lin bongu moo ko fay ñu ñu koy poursuivre si France yi si yenn yi xam ku nga xam ne daal Mm-hmm. du référence daal du référence du du nit ba xam ni euh, war nañu ànd ak moom du àndandoo ah. suñu xoolee dinaa si dellu soit mais suñu xoolee beneen dossier bi dossier Petro-Tim là aussi benn dossier bu nu nun ñoo ko commencé woon mm-hmm. si euh, euh, fin suñu fin nguur disons mm-hmm. signé woon sax benn contrat xam ne ministre de l'énergie moo ko signé woon ak Petro-Tim Limited benn contrat mais xam nga contrat da nga koy signé si affaire pétrole bi. Mhm. soo ko signé il faut que mu am benn décret ma xam ne président moo koy signé. Mhm. bu bu wax ni ànd na si. décret boobu nag kenn signé wuñ kon wala suñ ko signé woon aussi jaarul yoon ba xam ne dana am numéro am public journal officiel kon mën naa xam décret boobu amul woon ñoom bu ñu ñëwee aussi mu doy waar duñ duñ d'abord ñu teg. def enquête def euh, inspection IGE inspection générale d'État pour xool mbir mi lu mu fu mu toll lu am ak lu amul ensuite après ñu ñëw en mai ñu yónni Aliou Aliou Sall am benn benn contrat daal ak ak waa Petro Tim Limited bu mu amee 23 mai mu am benn contrat ah euh, euh, mu ni ñu ni ko mën ko représenter Petro Tim Limited Sénégal foofu la ñëw magam soog am signé décret boobu ñuy wax bu mu signé décret boobu juin bu mu passé moom euh, mu créé société bi en début juillet 4 juillet mu créé société boobu mu ñuy wax Petrotim Sénégal ñu nag lii nag doy na waar parce que foofu si ñaari bloc yooyu wóor na ni am na pétrole bu bare foofu moom loolu ñooy wooyee. Euh, Saint-Louis offshore profond ak euh, Kayar euh, offshore profond ñaari bloc yooyu ñëpp xam nañu pétrole bu bëri ma ngi fa ñoom ñu jël signé rakk ji président signe c'est rakk ji mu ngi si biir bu mu avant mu signé rakk ji dugg na si après mu signé rakk ji gën na si dugg mm-hmm. ñu ne aussi là lu doy waar la parce que pétrole quand Sénégal yëpp ko moom ñëpp ñoo ko ñoo ko bokk ñoo ko moom amul droit président président la mais amul droit di jël pétrole dëkk bi di koy di ko may di ko may rakam wala di ko bokk ak rakam kooku amul droit donc loolu aussi mu nekk benn mbir bu doy waar mu ñaari dossiers yi nga xam ni en fait yooyu mi ngi commencé woon su su sunu sunu nguur Aliou Sall bon xëy na euh, wax na gis naa émission boobu mais am na quand waxee nga xam ni euh, disons te ba te bu te bu doyul ñi. Mhm. te bu doyul nit ñi parce que avant président Macky Sall di di signer bi moom loxoom mi ngi ci biir. avant ça le vingt 23 mais am na benn. Euh, acte bu ñu ko signé ni ko yaay yow yaay représenté Petro Tim Limited. Mhm. am na loolu moom mhm, le 23 mai. bon du nii rek euh, il faut ñu leeral. Mhm. xam nga Sénégal nag dama dama laaj leeral. Mhm. il faut que ñu leeral su su leeree ñun du ñuy bàyyi wax bi mhm. mais. comme leerul kay ñun il faut que ñu si ArcelorMittal ñu euh, déposer ay ay plainte daan def sax conférence de presse fan yi mm-hmm. pour wan fan la plainte bi jaar ak fan la toll mm-hmm. euh, si euh, Petrotim daanu def aussi fii daanu xool ban matukaay ñu jël parce que mm-hmm. décret ñu signé woon quand même pétrole bu Sénégal famille Macky Sall duñu ay émir duñu <laughs> ah, duñu ay sultan ah, bay di jël pétrole pétrole bu Sénégal <laughs> Sénégal pétrole bi ñoom ñoo ko ñoo ko bokk <laughs> donc daan fexe bay loolu mën a am bon mais yooyu mu ngi bokk si mais amoon na yeneen ak yeneen ak yeneen fekkoon ni lu leerul rek am na yeneen hmm. si ay ay ay mbir yu doy yu doy waar hmm. comme loolu woowee article 81 am na yeneen euh, yenn marché ya nga xam ni am na ay ay mbir yu ñu fa dugal xam na bu baax nu ñu marché euh, comme ay autoroute rek yu mel noonu mais xam nañu bu baax nu mu nu mu demee hmm. mais egguñu foofu pour le moment ñoo si ñaari ñaari point yooyu mais am yeneen yu ñëw mais <laughs> ma kooku moom. Ah, ah, ah, yeneen am na yeneen bagage ngeen préparé. waaw pour euh, le moment yi ngeen agité nii comme ça. c'est que balaa ngay wax nii balaa ngay leeral Sénégal il faut que yow sax nga leer. Mm-hmm. Sénégal ngay wax nii bon il faut euh, ñun ñëpp d'accord noonu c'est-à-dire que koo dëkk réew. Mm-hmm. soo. génnee da nga war lu ñuy wax reddition des comptes il faut nga nga rendre compte mm. nga wax ni nii laa jëlee xaalisu parce que xaalis bi kenn moomu ko Sénégal yi ñoo ko moom xaalisu Sénégal gouvernement bi lii la ma jox mm. lii laa si dépensé pour que kayit yaa ngi nii mën ngeen vérifier loolu mooy reddition des comptes kooku normal Abdoulaye Wade bu ñu génnee te ni yéen ñëpp maa leen laaj gouvernement lu mu laaj jox leen. reddition des comptes c'est normal loolu ngeen war def. Mm-hmm. mais ñëw jóge foofu rek tam tam nit ñi tam nit ñi dem mm-hmm. commencé di def lii di def laa di def laa tëj ñi euh, di xoxatal ñi mm-hmm. bon. wax na <laughs> leen <laughs> mais après tëj beeg yooyu kooku euh, euh, dinañ si ñëw ji mooy kër yi beeg yooyu beneen bi Oumar mooy. Euh, euh, sénégalais yi bëri na ñoo xam ne rafetlu ñu euh, président Wade sorti yi muy def ci ci média yi xëy na fan yii sax lu tax ñu gëj ko dégg mooy ma nga Paris ñëpp sax ñu ngi xaw a noyyi waa tuuti. <laughs> soufflé xam naa bi ñu bisee tamit eh, ah, mu ne xëy na fête fête Noël ak décembre yu fin fin d'année ñu toll moo tamit ne daal Sénégal yi xaaral ma jox leen comme cadeau de fin d'année euh, <laughs> benn benn jet médiatique <laughs> mais dëgg-dëgg euh, euh, est-ce que yéen sortie médiatique yu yu yu war di def honnêtement monsieur monsieur Sarr est-ce que quelque part doo leen xaw a embarrassé waaw d' abord bon wax nga léegi président mi ngi président Abdoulaye Wade mi ngi mi ngi Paris. Mhm. c' est vrai que vacances euh, Noël yi la xam nga mhm. Noël euh, ak France mu mel. Mhm. doomu Karim yi amuñu amuñu baay amuñu baay seen parce que seen baay mi ngi prison seen yaay gaañu na. mu ni moom mooy mooy mooy maam bi il faut quand même mu toog ak ñoom tuuti si si fête yi loolu moo tax mu nekk. mu nekk France mais loolu su paree rek dana ñëw bokkaat. bu ñëwee bokkaat euh, ak ñun si si si xeex bi. parce que uh-huh. même bon. Euh, nguur gi d'abord moo nu tooñ d'abord moo ni nguur gi moo ni il faut que mu tas PDS il faut que mu rey PDS mm-hmm. loolu moo tax aussi ñun tam aussi ku ñu ko si wolof laa ngay dee weexu mm-hmm. donc euh, moo tax am na yeneen xam ni bon daan ko dana feeñ mais Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade mm-hmm. ñëpp xam nañu ko bon ñëpp xam nañu lu mu lu muy def communication man man personnellement man man dem ànd ak moom si wax waxin yooyu ñuy wax par mhm. exemple euh, si il faut que ñu yëngatu il faut que su gouvernement bi euh, arrêté wul lu muy def ñu ñun tam ñu def yeneen jéegu. Mm-hmm. man dama d'accord ak moom si si yooyu. Mm-hmm. yooyu ñu woowee insurrection ak yu mel noonu man waxoon naa sax ni Burkina Burkina defoon seen seen octobre. ñun tam mun mm-hmm. def suñu novembre su suñu su ñoom suñu bañoon. <laughs> suñu bañoon suñu suñu meeting bu keroog. bon donc wax bon am na yu mu wax am na yu yu mu wax bon ñun en tout cas man. man euh, d' accord naa si am na ñeneen ñoo xam ne nag si nun mën mm-hmm. na si bañ a d' accord ah, mën na wax ni xëy na mënuloon mënoon na bañ a egg fii wala mënoon def lu mel noonu mm-hmm. mais dans l' ensemble mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo nekk responsable parti démocrate sénégalais ak nu ñu nekk si militant bu parti démocrate sénégalais d' accord nu si lu mu wax parce que quand il faut que il faut que ñu yëngal. waaw ah, il faut ngeen yëngu-yëngal. Ah. <laughs> waaw mais mais actuellement justement si yëngu-yëngal boobu euh, dafa mel ne fi mu ne euh, yéen da ngeen jël lenge yi rek jébbal ko front patriotique euh, bu Mamadou de Decroix loolu nag ngeen def bëgg naa yow bi nga xam ne yaay coordonnateur donc parti boobu nga xam ne donc yow yaay voix autorisée bi nga nga leeral askan wi est-ce que yéen PDS. Euh, da ngeen a démissionné ci xeex bi. Hmm. wala boog euh, da ngeen ut boog euh, benn mbubb boo xamante ne nii. Hmm. wala ay combattant yu bees yoo moo tax ngeen jël lépp nag surtout yow mi nga xam ne yow yaa jiitee hmm. yëf yi nga xam ne yow yow la Sénégal yi doon xaar nga nekk ci ci nga jiitee xeex bi mais da jël lépp jox ko Mamadou de Decroix donc loolu aveu d'échec la wala ban lecture lañ ko mën lañ lañ lañ si mën a teg. moo xam nga dun nii ñun PDS pour ñu euh, passé nguur gi passé élection yu mel noonu ñu il faut que ñu ñu bañ a nekk nun rek di xeex il faut que ñu boole si yeneen partie yi yeneen association yi yeneen syndicats yi il faut que ñu ñëpp xam ni Sénégal moo tax ñu jóg euh, il faut que ñu ñu boole suñu suñu doole bon bu bu ñu defee loolu ñu ni ñu créé moo am na am na yeneen yeneen étape yu mu jaar mais ñu créé lu ñu wooyee front patriotique. Mm. léegi sànq yaa ngi nii front patriotique bu Mamadou Diop Decroix xanaa mën nga wax ànd jëf bu bu Mamadou de Decroix mais mm. front patriotique donc vraiment front la bu parti yu bare bokk. bu mm. seen ay syndicat ay mouvement bokk maintenant xam nga. du lu nekk rek xam PDS moo ëpp doole mooy parti bu ëpp doole. ci mm-hmm. front boobu. Mm-hmm. bon parce que quand même xëy na suñu daan lim parti Sénégal yi suñu nekkul P nekk deux. Mhm. bon mais yaakaar naa ni PN sax suñu soo xoolee bu baax. Ah, parce que ah euh, soo xoolee bu baax parce que ñun ñu dem élection ñun rek ñooy dem élection am suñu résultat yooyu te ñee kenn ñemewul dem élection. Mhm. moom rek. Mhm. donc vraiment man wax ni ñu ñun ñoo jiitu ci parti yi ci Sénégal. bon mais su fekkee lu nekk rek nga ni man maay jiitu. lu nekk rek euh, man man war a gis nit ñi daan dem ba parce que il faut nga nga nga man nga mën bokk. Mhm. nga mën bokk et bañ a wane chaque fois sa doole ak sa parce que ñoo bokk bëgg-bëgg bi ak ñooñu ak parti yooyu. Mhm. am na parti yu ndaw am na parti yoo xam ni xëy na euh, ñoo gën a tane am na ay syndicat am na am na ay mouvement citoyen ñoom ñëpp ñu ni ku nekk ñëw ni ànduñu ak waa PDS. pour xeex nguur gi parce que contre nunu lu muy def si euh, euh, lu muy lu euh, lu muy def si crédit yi contre nunu lu muy augmenter prix yi contre nunu lu muy def si réew mi xam nañu ni kii nguuru cuune la ñun ñëpp ñoo d'accord si loolu donc ñëpp suñu d'accord si loolu ba pare l'essentiel mooy suñu kaddu kaddu bi moo am mu am solo fu ñu yëngoo dans le PDS yëngu mm. fu ñu yëngu fu front patriotique yëngoo naan ni euh, PDS yëngu na. xam mais ci loolu euh, euh, gis nga ne personne bi incarné front bi aujourd'hui di Mamadou Diop Decroix il peine quand même à fédérer ndax boo boo xoolee ne aujourd'hui justement front bi comme ni nga ko waxee PDS mooy bi ci gën bi ci gën am solo après moom agi bu bu bu Decroix mais ñeneen ñi comme ay Mamour Cissé. bu PSD jant bi ñooñu génn na si donc euh, euh, pourquoi euh, front bi mu war a nekk rek dëkk croix moo koy jiite quoi du nekk amul amul amul système bu naa boo xam ne kenn ku ne mos daal. waaw loolu bëgg a def xam nga ñun duñu PDS ñun ñun bëgguñu jiite front bi. Mhm. ñun PDS parce que sunu sunu loolu am na yeneen liggéey yu ñuy def. Mhm. si réew mi front bi vraiment mën nañu bàyyi ñeneen ñi jiite ko. Mhm. bon maintenant si waxtaan wi daanu xool kooku mu ngi si waxtaan wi bon wax nga ñoom si Cissé am am na ñeneen aussi nga xam ni euh, xëy na gëj nañu euh, réunion daanu waxtaan puis xool loolu nu koy ko defee tournant mhm. mais c'est que ñoom lu ñuy gën a wax ñu xam ne duñu contre euh, nii de croire taxawee si front bi mhm. duñu wax ni comme si Decroix mooy mooy ëmb même Decroix moo ëmb PDS même Decroix mooy manipuler sax PDS. Mhm. c'est-à-dire que PDS xëy na euh, yaa fuus la quoi. Mhm. parce que mën na ñëw manipuler def defloo ko lu mu lu mu lu mu bëgg xam nga PDS quand parti bu taxaw la. bu xam bu baax fu mu fu mu nekk. Mhm. bu xam bu baax fu mu jëm. du duñ ko mën a manipuler noonu te de sax je pense du euh, euh, du bëgg-bëggam bëgg-bëggam mooy ànd ak PDS ànd ak euh, mouvement citoyen ak yeneen parti ba ñu song loolu si suñu song ñoom Macky Sall si loolu nag moom reculul benn yoon mm-hmm. su reculer benn yoon ñu tam doon reculer benn yoon mhm. si jàppale ko ak jàppale yeneen responsable mais daan xool suñu biir nag nu mu gën a rafetee pour ñu pour ñu ñëpp si bopp d'accord léegi nag euh, euh, Oumar euh, national du parti démocrate sénégalais ñi ngi daanaka si digg émission bi te laaj yi bëri ñu ñu ñu def rek taf-taf candidature Karim Wade en 2017 aujourd'hui mooy seen actualité <laughs> yéen ci ci PDS parce que ci ñi d'accord euh, ñi ci d'accord nag euh, su ma ci tuddee euh, ku mel ne mm, donc Babacar gay mi ko njëkk a ay ñoom sëñ Mbacke Ndiaye ak ñooñu ña ca des comme ay Souleymane Ndéné Ndiaye ak su ma juumulee ay Demboj ñoom d'accord ñu si li ñu d'accord mooy ay primaire dañu organiser ay primaire ci parti bi ba xam le meilleur profit ñu mën ko mën a teg tegal sénégalais yi mm-hmm. xam nga si loolu mën naa dem la war expliquer xam ne mën nga mën nga considérer ni scoop la. Mhm. Euh, fii ak euh, le mois de juillet. Mhm. juillet deux mille quinze. Euh, ñu daan def sunu sunu congrès. ah ouais. sunu congrès si congrès boobu daanu. désigner daan wax kan mooy nekk suñu candidat. Mhm. si eh, élection yi di. kon ay primaire la finalement. oui damay expliquer. Mhm. parce que bon xam nga juillet 2015 bon suñu quarantième anniversaire mooy août 2015. donc mhm. entre juillet août 2015. daan def suñu congrès. déjà xëy na fii ak jan janvier février daan wax suñu responsable yi. ñan ñoo yaakaar ni bëgg nañu ñoom. nekk candidat pour élection présidentielle. xam nga nag dafa ba ay ay ay jàmbaar. ñoo xam ni mm-hmm. aussi euh, macha allah xam na bu baax. Mm-hmm. Euh, mbirum kom koom bëgg nu Sénégal xam nañu fu yàgg mën nañu yóbbu Sénégal. Mm-hmm. feneen fu ko euh, Macky Macky yóbbu. parce que Macky mi ngi suuxal Sénégal <laughs> dara doxul. bon am nañu. quand même xam-xam Abdoulaye Wade di jàngal nañu yenn yi mokkal nañu yenn yi mm-hmm. te yaakaar naa ni PDS am na vraiment ay responsable yu yu am solo ya nga xam ni mën nañu tee réew mi mm-hmm. donc ñoo ñëpp bon waxtaan ak ak ñoom wax nga ñenn ñi si wax nga leen am na ñeneen aussi bon mais euh, am na ñoo xam ne duñu Karim Wade moom moo euh, war a nekk sunu sunu candidat am na xam ne duñu yaakaar ne ñoom seen bopp ñoo war a nekk mm-hmm. euh, candidat am na xam ne xëy na am na yeneen xalaat mais loolu yëpp nun si biir PDS daan ko commencé eh, liggéey ba ñëpp d'accord ci kàddu mhm. lu wax mooy il faut que kenn mënul jog rek nii mhm. tey jii kii moo war nekk candidat mhm. donc il faut que ñu liggéey ci ensemble donc daan daan su liggéey à partir du mois de janvier daan su liggéey incha allah daan am primaire daan dem xool kan moo nekk candidat te je pense su amee candidat ku ñu d'accord ñëpp ànd ak ñun liggéey ci ci biir primaire yi ku nu mën a fal rek ñëpp daanu ànd ak moom jàppale ko pour ñu mën a song Euh, song euh, Macky Sall. Ah, waaw loolu moom scoop la ma la ma la ci remercier mais ba ca des mooy bëgg naa nag euh, bi waxuma ak coordonnateur du parti démocratique sénégalais. Hmm. dama wax rek ak le le le simple militant. du hmm. parti démocratique sénégalais. Hmm. aujourd'hui man gisuma personnellement ci PDS ko ëpp buzz Karim Wade te sénégalais yi buzz lañ gëm. ok xam nga loolu. bon xëy na sax Macky yi dimbale nu loolu si si loolu parce que Euh, xëy na Karim yaakaaruloon ni dana toll fii si mhm. xolu Sénégalais yi. Mhm. bon mais bu mu ko dugalee euh, kaso ñëpp xam ni xëy na daan si gën a waxtaan ñëpp xam ni duggalu kaso bi duggalu politique rek la. Mhm. du dara lu. Euh, bëgg bëgg song bàyyam song PDS moom moo tax mu moom mu toog euh, moo toog kaso Sénégal yi gën ko gën ko xàmmee gën ko gis gën ko dugal seen seen seen xol c'est vrai que euh, tey jii mi ngi bokk si ña nga xam ni am nañu yaakaar ni su ko su jiitu woon mën na daaneel nguuru makisal Sall xam nga nguuru Macky Sall du nuy du nuy football xam nga mm-hmm. lu tax ñu dugal ko kaso duñ wax sax nii ñoom duñ bëgg a fexe ba moom mu bañ a nekk candidat mooy hmm. suñ ko fexe ba ñu tëj ko wala ñu condamné ko. waaw ah, comme ça ñu déchoir ko ci ay eh, droits eh, civiques. yu mel mais mën naa la wax ni tey suñ demee ba ñoom ñu déchoir ko euh, euh, droits civiques Macky Sall moom du présenter élection. Ah, parce que quand euh, am na xam ni ñëpp xam nañu deful deful dara ñun mënuñu bàyyi rek xanaa ñu ñu rey ñun ñëpp. Hmm. mais ñun mënuñu bàyyi rek ñoom ñu. ñuy def lu leen neex ci réew mi. xam nga balaa ngay tëj nit il faut que nga am quand même ay argument nga mun nga teg ko. ci ci dara. mais gis rek ni kii mën a nekk candidat mën na ko nekk mën na sonal ci ban ci élection ñu ne daal lu gën a simple. lu gën a yomb mooy mu tëj ko bay euh, beneen situation mu présenté donc sûrement ak situation bi ñu nekk am na mouvement yu bëri nga xam ni duñu wax ni Karim moo war a nekk seen euh, seen ay candidat mm-hmm. mun xam nag parti bi laa laa gëm xam nga man bokk ma si mouvement yooyu. Mhm. moom man parti bi laa gëm. Mhm. bon su euh, suñu commencé euh, mbir mi peut-être en janvier wala en en février ñu laaj mhm. ñan ñoo nekk candidat. en ce moment là daanu daanu xool moom su fekkee nekk na candidat su fekkee ñeneen ñi nekk na candidat. en tant que responsable ku nekk dana xool euh, kan moo ko kan moo ko doy. mais man man en tant que coordonnateur parce que quand même man nekkuma si. si euh, jàppale kii wala wala kii. man mhm. en tant que coordonnateur disons sama position mooy nekk si kaw. Mhm. bañ euh, commencé tey jii di wax ni kii laa faral wala kii kii kii laa faral man mhm. du suma du soo wol d'accord naa léegi euh, monsieur ministre ñu ñëw rek rapidement ci justement sa sa sa leadership yow. yow sa bopp en tant que coordinateur national euh, donc du parti démocratique sénégalais euh, au début sax defe naa temps yi sax yaa ngi am quelques éclaircies parce que hmm. au début ba ngay doog a jot euh, ci post boobu hmm. bari woon na ay xeer yu doon jóg si yow ak yu mel noonu mais temps yi gën ñaa ko dégg et c' est que ñu bëri ñu ngi doon xaar ñu ngi doon xaar au tournant ci élection locale yi hmm. bu xool ba xam est ce que di nga lajjlee dagane bi nga xam ne sa fief la ndax yaa depuis deux vingt 1996 euh, ñu falaat la daanaka depuis 1996 bépp élection locale bu am rek euh, waa Dagana yi wóoluwaat la tegaat la ca bopp ba euh, maintenant li nga xam ne moom laa la bëgg a laaj li tax sax justement sa sa leadership yow ci boppam au niveau national mooy sa fief boobu Dagana ren ci élection locale yi yow yaa gagné commune ba naam mais département bi perdi nga ko Euh, loolu est-ce que mënul euh, émietter sa leadership. waaw ah, xam nga waaw maa ngi lay gërëm si question bu mel noonu bon d'abord bien sûr maa ngi gagné naa élection yi di gërëm euh, sama mbokku wàllu wàllu yi sama mbokku dagana yi si wolo bu ma wóolu duñ ma sas aussi hein mm. chaque fois wax naa leen nii man. yëpp man ak ñoom benn nunu amul dara lu nu séparé Euh, si élection yi si wane nañ ko euh, puisque ñun wu wuñu rek ay ay 30 pour cent wala 40 pour cent su naan def élection Dagana du ñu gagné pour cent et plus de 60 soo gisee élection départementale yi si biir commune Dagana rek am nañu fa lu doy 65 pour cent mu mel na donc euh, ñett nit yoo gis ñaari nit ñun votel mm-hmm. kooku gisuloo ko si yeneen yeneen dëkk. Mm-hmm. mais nag si élection départementale bi. là aussi il faut que ñu xam nga malheureusement nit du duñu wax yenn saa yi sans c'est c'est xamuñu mm-hmm. bon soo xoolee élection yi nun euh, ñoo ngi am ci biir euh, euh, département Dagana mm-hmm. ñoo ngi am 41 pour cent c'est-à-dire lu ëpp ñeenti nit ci ci fukk ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñu voteel soo xoolee loolu Euh, euh, euh, waa majorité bi xam nga opposition nu leen wooyee parce que ñun suñu kii. même waa waa majorité présidentielle bi ñoom du ni il faut que ñu nekk benn. nekkul benn rek kenn su ñoom su su bokkul seen coalition bi rek ñun daan leen daan leen raw daan leen raw raw ba xam ni kenn du nu mën a dabati. Mm-hmm. moo tax lu élection bu mënti dem. ñoom ñëpp ñoo ñooy bokk seen seen coalition boobu mm. donc maa ngi am foofu ñoo ngi am foofu euh, ñun euh, PDS ak ses alliés ñoo ngi am 41 euh, pour cent soxla biir commune Dagana wax naa la ko sànq. Mm. PDS rek moo présenté woon amul woon alliance sax mm. parce que rek ñoo présenté woon comme si liste bi. bon maintenant soo xoolee résultat au niveau national xam nga mën nga am 41 pour cent. gagné. mën nga am 41 pour cent perdre. soo xoolee par exemple parti euh, yi nga xam ni opposition nu nekk euh, Thiès Thiès par exemple gagné nunu mais ñoom ñoo gagné Idrissa Seck moo moo gagné mais ñoom 39 pour cent nu am. Mm-hmm. nun ñoo leen ëpp euh, score mais pourtant. Euh, euh, gañewuñu parce que euh, ñoom xam nañu il faut que ñu nekk benn soo xoolee même opposition de manière générale à part Ziguinchor hein à part Ziguinchor ñun kenn rek moo nu moo nu ëppale mooy Mbacké Mbacké moo am mhm. pour cent nun ñu topp si mhm. ak ñoom Koungheul am 41 pour cent pourtant gagné wuñu sunu suñu département donc en terme de résultat pourcentage bu nu am département yu bare yi nga xam ni opposition wala majorité ñoo ko gagné ñoom amuñu amuñu sunu sunu sunu. résultat finalement yow li nga bëgg a wax mooy li nga perte ci département bi amul benn incidence euh, euh, euh, ci yow finalement. non mais bon parce que. ñoom mais c'est quand même important le département aujourd'hui. oui absolument c'est que mënoon naa am 30 pour mm. département bi. expliqué ni ñoom nekkoon ñu nekkoon face ak ñun. Mm. nekkul woon benn. Mm. xam nga am 30 pour mais léegi am 41 pour cent perte. am na ñu am ay 30 pour cent ay 35 pour cent wala yu mel noonu gagné seen département alors que ñun vraiment si parti en tout cas si département yu opposition yi gagné ñoo ngi bokk à part donc euh, à part Ziguinchor et et Mbacké ñoo si top ñun ak Koungheul. Mm. ensuite yeneen euh, euh, dëkk yeneen département yi topp si xam ni département yi nga xam ni ñun ñoo leen gagné ñun mm. opposition ñoo ko gagné. Mm. mais seen seen pourcentage tollul suñu pourcentage ensuite même en terme de nombre su xoolee département même département. département Dagana nga mën si euh, jël euh, je pense euh, ñaar fukk ak ñeenti junne nit ñi xam ne ñoo ngi voté pratiquement Euh, nun euh, PDS ak seen ak seen allié si biir élection départementale lu am solo la si euh, biir ñoo ngi am presque résultat yi nga xam ne ay département yu yu rëy si Sénégal amuñu ko mhm. déjà si élection législative yi nun ci biir PDS après Dakar nu ñoo si toppoon mais mhm. ren aussi si élection locale yi je pense ñu nekk si premier département yi nga xam ne daal en terme de disons baat carte yu nu dugal si mhm. biir lu lu lu PDS am d'accord alors loolu man bëggoon naa ñu gën si taxaw mais malheureusement euh, Mor xaama neen il me reste moins de dix minutes euh, mais Dagana moom sañoo faa dugg ba génn fa te nuyu sama mbokk ñu fa nekk parce que te yaa suñu nag te ñun Dagana euh, mënuñu am lu gën a fort Dagana foofu la ñu bokk te may nuyu nag ña fa nekk ñëpp duma fàtte ndax xam naa sa yéen ñaar je pense ay xarit ñëw mais je pense que li nekk ay xarit tellement sama grand frère Mankeur Ndiaye ah le ministre des affaires étrangères di ko sori si man dëgg dëgg féete ma fu waa Dagana la waalo waalo bu mag boobu di ko bu baax alors euh, monsieur le ministre euh, euh, ñu ñëw ci beneen actualité boo xam ne jamono ji tamit mi ngi si yéen waa PDS mais côté xale yi la xale yi sax seen xale yi lañu ñu tàmm di wooye sauvageon yi mm-hmm. mu mel ne jógaat nañu ndaxte UJTL nga xam ne président Wade Euh, euh, moo name woon bureau bu bees bi nga xam ne Toussaint Manga moo ko jiite euh, fan yii yëpp nag ñi ngi gis ci presse bi ne Toussaint xëy na dafa bëggoon a jël indépendance am nommé boppam bureau am xëy na pour daal am et pour moi c'est c'est assez normal quand même comme ni ma ko gisee ñu koy wax bien que xaw ma seen statut parti yi donc def na fi un certain temps donc il a voulu procéder à ce renouvellement là qui n'a pas fait plaisir à beaucoup de gens et finalement ni mu mujjee déggee ñu koy wax mooy su su soir ngeen justement ci euh, bureau yooyu ma bëggoon rek nga wax ma euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ak euh, seen xale yi nekk si UJTL d'accord mais Aïssatou nga baalal ma rek mais ma nuyu aussi comme nuyu nga leen mm-hmm. sunu ministre yi yu nekk ci biir gouvernement bi mm-hmm. Euh, na joge cosaanoo Dagana hmm. ma ma nuyu suma sama rakk euh, Mankar Ndiaye di nuyu hmm. aussi sama sama rakk Mokhtar si nekk hmm. directeur cabinet euh, président de la République di nuyu aussi sama sama jigéen Anta Sarr ma xam ne moo nekkoon si moom waa Dagana la Anta Anta Sarr Anta waaw bien sûr ah, xaw ma ko woon ah, voilà donc suñ suñ doon najaay la donc yooyu yëpp ñu xam ma nuyu leen parce que relation relation yu am Euh, politique bi dafa am. Mm. mais ensuite am yu nu jiitu. mooy euh, mbokk yi. Euh, par exemple yow sa sa papa mm-hmm. Papa Fall Adjuma mm-hmm. ak sama sama tondo sama mm-hmm. rakk papa ñoom de de rek moo moo leen. moo leen defalee <laughs> waaw vraiment mu nekkoon sama. xaritam bu baax a baax ñii aussi nekk vraiment suñu. ñoo bokk suñu dagana waaw voilà suñu suñu suñu loolu waaw loolu sama ñëw fii nga wax leen. dam leen di nuyu. di nuyu en même temps ñi nga xam ni suñu ay mbokk yi nga xam ni. tey jii ñoo ngi si ñoo ngi si kaso Macky Macky Sall moo leen téye foofu. muy Samba Diagne jiital ko ci. muy aussi Aziz Diop. ak yeneen responsable yi nga xam ni yëpp. ñoo ngi ñoo ngi foofu mu ñoom Karim Wade. ak. Euh, ñu téye foofu yëpp mhm. ah, si euh, ñu nu way nun otage politique parce que mhm. nguur gi tam leen téye mhm. pour ñu bañ leen song hmm? bon donc bu mu la nuyoo ba pare euh, si mbirum UJTL bon c'est vrai que amoon na coow tuuti mais il faut ñu xam ni aussi parti dafay dafay fonctionner soo xoolee par exemple bureau bureau UJTL benn équipe de équipe équipe de football comme nit ñi football nu gën a bëgg bon quelquefois nga da ngay def capitaine quelquefois euh, benn euh, kenn doxul bu baax euh, wala ñenn ñi nu dem bon am na ñoo xam ne du ñu bon bàyyi nañu football ñu def leneen. Mm-hmm. bon il faut que ñu ñu ñu ñu changer quand même quelquefois xëy na loolu coow coow am am amoon na mais je pense que bon daanu régler régler yëpp mais bon je pense que pas que mu am problème bu am bu am solo daa ay ay nit mu loolu ñëpp d' accord comme ni koy waxee yàlla sax euh, amu ko donc euh, bon daa am ñi xam ne daanu contre ko defee dara am ñi xam ne daanu daanu d' accord bon mais je pense que dans l' ensemble euh, situation bi comme ni koy waxee c' est sous contrôle. Ah, bon mais mais finalement kañ ngeen di procéder réellement wala moom tamit dafa dafa bokkaale ci seen congrès bu juillet bi. oui congrès bi daan waxtaan ak euh, daan def euh, avant ça daanu xool bu baax euh, ñun ay structures yooyu. Mm-hmm. mais bon daanu secrétaire général national dana jël ay ay ay mesures. pour mm-hmm. gën a taxawal responsable xale yi kuréelu xale yi tout ça moo nekk tey secrétaire général secrétaire national du UJTL. Mm-hmm. bon daan ko gën a dooleel pour liggéey bi gën a dox. mais kon donc donc pour le moment nañu jàpp parce que boo ko waxee day officiel euh, mooy euh, que euh, ancien bureau bi mooy bureau bi fi président Wade bàyyi woon ci ak Toussaint ak ñeneen nekk ñëpp ba tey moo moo fi nekk que beneen bureau bi Toussaint defoon yóbbu ngeen ko géej non kenn yóbbu ko géej bon xam bon du ak ak Toussaint Toussaint ak nun am mu def mu def bureau boobu mais lu nu mën def si bureau UJTL lu nu mën a euh, d'accord si bureau UJTL. Uh-huh. fondement bi mooy loolu moom mu defar. Uh-huh. parce que quand même mooy responsable bi waxtaan ak ñu mën a waxtaanal. Uh-huh. donc loolu mooy fondement bi moom mën xëy na mën ko laaj euh, si kii wala kii mu xool nu koy. nu koy gën a nu koy gën a defaraate waaw comme nu koy wa nu koy waxee. <laughs> bon mais bon fondamentalement euh, vraiment du ñuy daanu dooleel Toussaint. si liggéey boobu xam ne duñu ko sas mais après nag suñ ko doolee il mu def bilan. waaw bien ah, amee su ma joxee carte blanche comme mu ngi koy waxee. Mhm. fii ak ñetti la juróom-benn weer. Euh, euh, mhm. daan def bilan su fekkee vraiment liggéey bi dox na nu mu waree parce que il faut que xa sunu xale yi. il faut que jeune UJTL yi mhm. jeune partie bi. ngeen dooleel gën a ñu dooleel mais gën a jóg gën a. Euh, gën a gën a liggéey gën a gën a fës si mhm. euh, liggéey bi si xeex bi ñu ñu xeex mhm. donc je pense que suñu ñoom suñu changé seen kuréel boobu dana dana gën a gën a baax d'accord alors léegi nag euh, Oumar Sarr li ñu desee si minute dañuy taf tafee question yi moom dama la koy dóor noonu rek jox ma <laughs> directement sa laaj naka nga gisee Baylawon ak ñamu àndal la ñu créé tuddee ko cercle des amis de de Macky Sall man bon xam ñooñu xam nga dama déggoon si journal yi ñu ne ñii PDS ñu jógee xam ah. xam nga Bayla moom. kañ la ah Bayla jógee na PS bu de wala. ah, ah jógee na PDS bu yàgg. bon ah. depuis élection je pense. Euh, mm. élection présidentielle yi la la jógee. élection mm. locale yi mu ngi doon jàppale euh, waa waa APR. bon soo xoolee si seen biir liste boobu ñu joxe am na sax wan sama wenn xarit la moom mm. du wan moom chef de parti la. soo gisee ñeneen ñi ay anciens ministres yooyu mosul nekk sax PDS bon xam nga vraiment fontu lu quoi du ñuy du ñuy fontu Ah. ba mu gisee liste bi daal daal ñi ñoo ñi ñoo jóge PDS nekk xaritu mag yi mel ni ñii ñii vraiment du du ñuy foofu Euh, euh, CREI yi sànq doon nañu ko junj euh, CREI yi procès Karim Wade d'ailleurs reprendre na semaine bi ah ñi ngi xaarandi délibéré bi donc lundi bi le 29 décembre li ma si bëgg a laaj mooy Sénégalais yi bëri dañoo jommi ndax tey dañ foogoon ne que amoon na tentative ba rabibochage entre yéen nag président Macky Sall ba mu dàqee ke doon incarné CREI yi di Aliou Ndao Euh, ak ak yi ni mel donc euh, aujourd'hui euh, ñun daal xamantuñu ñun fa ñu naka lañu mën a waxee ci seen diggante yéen PDS ak Macky Sall jaarale ko ci CREI yi. waa xam nga CREI yi jël ay doomu jàmbur ñëw nii tëj. Mhm. te basé wu si dara defuloo enquête bu bu war. Mhm. ñëw rek ni yaay état yaay doole état. Euh, bon na ñoom Karim Wade ñu ñu tëj leen euh, ñenn ñi ñoom Omar Sarr ñu leen enquête yóbbu leen xam ñaar xam ñetti yoon gendarmerie. Mm-hmm. ñu leen euh, yéen ñi ñëpp Omar Sarr ñoom Madické ñoom Samuel mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. bu leen bu leen tukkati mu leen am am leen droit tukki bon. vraiment xam nga wane doole doole doole nguur gi daal euh, doole buur comme nu koy nu koy waxee euh, bon après nga bëgg euh, jubo ak ay nit ñi aussi mu am yeneen enquêtes ya nga xam ni. waaw waaw eh, dafay xajam. waaw yeneen enquêtes ya nga xam ni vraiment da ngay gis ni doole doole buur rek nu nu ñuy wane foofu mm-hmm. wane ensuite si enquêtes yi gis ngeen ñu am day yëpp. bàyyi nu leen ah mm, kumba am day bàyyi nu leen ñoom ñëpp ah ñu leen defuñu dara <laughs> eh. ñoom bàyyi la wóor wax ñoo ñu ak ñeneen ñeneen ñoom ñëpp bàyyi nu leen ñu leen defuñu dara génn leen nun eh, nag ñu ñu amul ñi day ñu leen ah yéen eh, yow mu loo voyagé yow kañ tëj la CREI Karim yow gën a gën a yàgg fii dafa ñaari at pour dara mm. jël suñu ay ay xarit suñu ay ay àndandoo mm. tey leen comme ça après loolu juboo mënul am si loolu mm-hmm. xam nga balaa nga mën a waxtaan ak nit mu bañ a am espèce su otage suñu jëlee sa otage mm-hmm. comme ñu koy waxee jël si ay nit ni ñii seen otage la mm-hmm. loolu wotaan munu foo munu foo am mm-hmm. bon xam nañu bu baax euh, euh, Macky bon mais je pense quand même te ba te tële te tële et donc situation bi aussi euh, mu nekk situation bu doy waat bon nun nag daanu daanu xeex daanu continuer ku mu koy wooye yëngu yëngal yëngu yëngal ba mu saf mais mais justement gis nañu yow ci affaire CREI sax yow ak yeneen député bokk nga si ñu lever seen immunité parlementaire mm. depuis deux ans maintenant d'ailleurs moo tax ba ba peut-être ak sa sa document de voyage aussi bien que temps yi am nga ay quelques échappés mm. j'ai pas envie de échappé belle mais am nga <laughs> quelques échappés yow defoon mais mais sa affaire immunité boobu quand euh, euh, gis nañ ne euh, ci fan yi rek ñu génn sa ay nawle député Euh, ñoom doon nañu sax euh, posé wu question ci pertinence su euh, levée immunité boobu parce que boobu ba léegi déggaatuñu fenn fi la woowee daal genre. non d' accord su xoolee voyage yi man benn réew rek laa mën a dem sinon si ñoom benn réew laa mën a dem si àdduna. Mm. pour ñoom mooy Afrique du Sud parce que man dama nekk am temps député parlement Afrique bi yëpp mhm. donc munu munu ma bañee joxe kayit pour mu dem Afrique du Sud mais mhm. xam ne sama demee Afrique du Sud mën naa di jaar fa dem Paris jaar fu ma neex <laughs> comme ba sama bëggee voyager réellement du ñoom ñoo mën a ñoom ñoo mën a téye eh. xam nga bon vraiment dama ko wax ñoom tam aussi xam nañ ko bu baax mais aussi depuis deux ans bu ñu def lever suñu immunité parlementaire duñu wax ni wax wax yu rëy yooyu bon ñun ñu woonu sax assemblée pour ñu ñëw expliquer wu man dama ni bon man jour boobu sax dama ne man dama dama dem nappi quoi parce que vraiment <laughs> loolu moom mu gën a <laughs> loolu moom gën am farata que ñëw ñëw toog si ñoom eh. di di wax ak si wax eh, hmm. mbir yooyu si ak ak ñoom bon mais depuis deux ans boobu ñu doon wax ñëpp xam ne ni doon urgence hmm. affaire bu fontu rek ñu doon def hmm. bon donc léegi c'est responsabilité la ñëw waxoon nu du ñu def enquête def lii def lii mm-hmm. def laa mm-hmm. euh, depuis lors benn yoon rek man personnellement beneen yoon ma su woo kenn wootuma mm-hmm. après ensuite euh, du bon je pense que il faut que am na ñoo xam ni xëy na voyagé tunu euh, am na xam ne téye nu seen loxo xëy na du ñu yaakaar ne suñu waxee noppi leen euh, da daanu daanu nëbbu toog mm. euh, noonu làqatu ah yaa xam duñuy xoqatal pour pour loolu mm. te nu gën a dëgëral ah mm. nu gën a dëgëral mu nu gën a yokk suñu gëm si li ñu li li ñu nekk moo tax euh, vraiment je pense quand même pays démocratique bu nekk Sénégal war na bu nekk Sénégal war na bàyyi ay CREI war na bàyyi ay immunité parlementaire yu ñu levé si rek yaa ma neex parce que bëgg nañu xeex nit gi bëgg nu tiital nit bi loolu war nañu ko dépasser mm-hmm. maanaam assemblée nationale boobu mooy bi mooy avant dernière question bi euh, euh, yaa ngi ci léegi depuis euh, pour na deux ans genre est ce que ànd nga ak ñuy wax ne assemblée nationale bi mooy mooy mooy incarne immobilisme d' accord nga ci. bon mais xam nga oui mais bon si assemblée bi di que xam assemblée ak gouvernement nag soriwul ah. Mm-hmm. c'est-à-dire su. su Macky je pense que su gouvernement bi su régime bi tëlalee su régime bi mënul dem. Mm, assemblée bi mu mm. mënul dépasser mënul am vitesse ba nga xam ne dafay euh, dépasser euh, lu gouvernement bi ak lu bi di def. Mm. bon moo tax euh, xëy na taxaw nañu si lu bare ñu ñëw rek jox ñu ay loi jox nu ay budget ñu ne voté leen bon kenn mësul changer virgule soo bëggee changer virgule ñu tam la lu nekk mm-hmm. bon. problème la assemblée bi problème la xëy na aussi nu leen fale si nii rek ñu ñu leen du kaay leen def coalition mm-hmm. kenn ku nekk kenn demul wuti si bopp mm-hmm. ñoom du nëbbu si euh, làqu si coalition dem dem dem wuti mm-hmm. ñu ñu boot leen euh, régime bi boot leen ni vraiment coalition régime bi xëy yooyu yëpp tax na il faut aussi ñu xool suñu institution institution yi nu mu waree gën a gën a demee parce que quand nu ñu woowee assemblée nga xam ne rek dawaa ñëw rek euh, assemblée croupion moo ñu koy waxee si si ñoo rek toog fii eh, eh, di tàccu ak ak ak ak bon c' bon vraiment yaakaar na assemblée mën na war na man la. Euh, mën na assemblée nationale justement ki ko jiite mooy euh, euh, Moustapha Niass mi nga xam ne mooy leader AFP loolu moo ñu indi kon suñu dernière question nekk jamono jii booy booy gis teesante bu am diggante président Macky Sall. Euh, ak euh, ay alliés am ah, euh, xoolal jamono ji ñu li ñuy assister mooy parti socialiste mi nga xamante ne nii ma nga ca Benno Bokk Yaakaar waa APR ak ak njiit la bëgg di xaar ci ñoom ñu bañ a présenter seen candidat en deux 2017 na ko AFP defee boo gisee actuellement nii ne yéen PDS fàtt xaw nañ leen fàtte tuuti ñoom ñaar ñooy defante da reetaan wala waaw damay damay ree parce que bon xam nga euh, lu ñuy wax euh, safara ak ndox kenn mu leen kenn mu leen boole. Uh-huh. bon parce que ñoom itam lan moo leen boole waa euh, PS ak waa Macky Sall yi. Uh-huh. xeex rek xeex Abdoulaye Wade. Uh-huh. mooy seen lu lu ñu bokk. mooy lu ñu bokkoon bay ñu fal Macky Sall. loolu lu ñu téye xeex Abdoulaye Wade xam nga loolu du programme. gis-gis yi bokkuñu ko. Euh, PS wax na wax na dëgg parce que partie boo mënti gis nu ko demee bay créer parti c'est pour euh, jël pouvoir bi. Euh, bon ñoom loolu ko gisee donc je pense que élection 2017 yi ñoom duñu wax nii daanu nekk euh, candidat xuloo yi sax su ko commencé nii rek dana gën a da gën a xam naa. Ah <laughs> xam naa xam naa xam naa yenn yi wala dégg naa dégg naa yenn yi mm-hmm. bon dana gën a fës am na yeneen parti yu bokk seen coalition boobu aussi daanu. à part le PS. bien sûr ñoom ñëpp ku nekk xam ku nekk ba léegi rek wax nga ni daal lu Mamour Salé wax daal ke Euh, ah, waaw ah, bon et puis même bon Tanor di wax quand ci seen euh, réunion boobu di wax euh, lu ko. lu ko lu ko président Macky wax ne. ne weddi na Mahmoud Saleh kii directeur cabinet la def na ko di cabinet mm. politique la. Mm. mu ñëw di wax benn responsable politique ne sama directeur cabinet politique weddi naa ko. Mm. mais kooku vraiment war na xoolaat war na xoolaat boppam Macky. cest à que soit am na am na ku nekkul si place am. Eh, am na si si ñett ñooñu am na ku nekkul si place am. Eh, bon jeu la de mën nañu xool <laughs> <laughs> xoolul ba. jeu la moom. <laughs> mais mais am na ku nekk <laughs> mais xam naa ne moom j'imagine que que que que président Macky Sall moom toogee dégg tanoor loolu bu baax. ah oui ah c'est c'est quand même quand même c'est c'est c'est grave. c'est grave quand même un président bu wax nii man sama directeur cabinet d'accord moom ak moom mm. yow yow yow laa d'accordal def leen lii ak def leen laa mm. alors que ñu lu mu wax moom mooy rek moom euh, il faut que ñu jàppale seen seen candidat je mm. pense que Macky Sall mooy nekk seen candidat sauf su demee bay 2017 nii xam nañu xam na wax dëgg yàlla ni mënul euh, lu mu def lii. Euh, baaxul te soxlul muy essayer nekk nekk candidat mm-hmm. te xam ne nii mu demee su demee daan ku dóor si si élection yi xëy na mu mu nii bon maa ngi euh, rocceeku naa maa ngi maa ngi maa ngi dellu dellu gannaaw mm-hmm. xëy na xëy na loolu mais vraiment ñoom mi ngi commencé gën a jaxasoo seen seen biir mm-hmm. eh, loolu euh, xam nga jaxasoo bi finalement ça vous arrange yéen jaxasoo bi mais c'est que loolu c'était man wax ni c'était c'était c'était inscrit dans dans. ah c'est pas un scoop ah bon parce que euh, xëy na sax te ba gaaw a feeñ nii. Mm-hmm. mais ñëpp xamoon na ni euh, objectif fu parti euh, socialiste. Mm-hmm. mooy ànd ak ñoom bay fu ñuy tànnee. Mm-hmm. fu ñuy tànnee candidat élection 2017 ñoom ñu. ñu beru jël seen candidat génn si gouvernement bi mais c'est normal noonu la Abdoulaye Wade defoon avant avec euh, avec Abdou c'est la bonne guerre. Euh, bon donc ñoom aussi seen seen gis-gis mooy mooy loolu te je ne pense pas am doole bu mu leen forcé mm-hmm. ñu ñu ni euh, lu ko tànn ma xam muut baa mot xam <laughs> xam loolu noonu la waxoon <laughs> euh. bon mais je ne pense pas que mu am mu am doole boobu donc ñoom ñoom ñoo xam nga mu ngi jógee wax na ko sànq si élection euh, législative bu ñu def député yi mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ku nekk te waroon dem soobu xool lu mu mën a am. Mm-hmm. mais dès le moment ngeen dem nekk. bootu bootu nekk ba même coalition mm-hmm. kenn ku nekk nii sëm fa sëm fa jógee du mu am lii. Mm-hmm. wala du mu am laa. te moo tax jaxase waaw moo jaxase carte tey kooku xëy na mag yi moo ñemewul woon. je pense su demoon sax xëy na dina am député moom. daam am député yu gën a yu gën a bare ñeneen ñi xëy na dina am député yooyu ñu am ñu am tey. mais moom moo leen jox. pouvoir boobu mu leen mu leen jox kattan boobu jox leen ay moyens yi pare chaque weer wu nekk dafay joxee ku nekk dañ ko <laughs> dañ ko compal dara bon xëy na moo donc moom moo tax moo tax parti yooyu tax tax taxawaat mais euh, bon en tout cas waxtaan bi commencé noonu rek mais dana gën a continuer et je pense que euh, mbir yi dana leer ñun waxoon ko depuis le début que ànd bi du and bu normal àndu coomo la bon du ànd bu bu normal mm. mais euh, dëgg daal dana gën a dana gën a bëgg a feeñ et je pense que nit euh, ñi Sénégalais yëpp daanu mm-hmm. daanu xam daanu ràññee lu ñu waxoon démb noonu ak lu ñu wax tey mm-hmm. et ànd boobu daal presque je pense que tas na mm-hmm. xëy rek bañ a bañ a daanu léegi bañ organiser élection guddal waaw waaw guddal jël rek la mais bon c'est affaire bu bu jeex la. bu jeex la hmm. alors euh, Omar Sarr euh, euh, maire de Dagana coordonnateur national du parti démocratique sénégalais sa émission jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak sénégalais yi la doon seetaan. ok merci beaucoup Aïssatou ma nuyu ñëpp di nuyu donc sénégalais yëpp sunu. ay responsable parti parti démocratique sénégalais su mais aussi ñeneen ñi nga xam ne yëpp ñoo ngi ci Sénégal di la gërëm pour euh, waxtaan bi ñu am ñu am tey di jox rendez bu fii fan yu néew daanu am suñu ay ay réunion lu mu la waxoon sànq si fu PDS jëm nu ñuy mhm. organiser sunu ay primaire nu jëm ay sunu ay congrès mhm. nu ñuy liggéey pour euh, gën a gën a nekk benn mhm. yooyu yëpp daanu gën a def ay réunion gën a def ay comité directeur gën a préciser président Abdoulaye Wade secrétaire général national dana gën a euh, jox ay ay ay kaddu pour ñu xam bu baax fu nu fu nu jëm yaakaar naa ni nun en tout cas fu nu dem ci Sénégal dañuy wax nii na mënuñu euh, parce que nguur gi euh, doxul euh, demul mënul dem yaakaar naa ni Sénégal yi na mënuñu bu baax nguur bu mën a liggéey mën a yóbbu Sénégal yi feneen mën a indi liggéeyu xale yi mën a indi soppewu jamono daal mm-hmm. donc loolu moo tax ñun bien sûr ñoo ngi gën téye lu ñu jàppali et di jox rendez-vous sénégalais si si fan yu néew. voilà alors ñu leen remercier bu baax a baax euh, Omar Sarr euh, saa bu ñu la soxlaa am na sax ay journalistes yoo xam ne euh, maa ngi maa ngi nuyu nag sama sama mag sama sama xarit sama lépp Daouda Diouf secrétaire général bu RFM chaque jour moo ma naan yow daal Omar Sarr yow kese lay waxal. waaw <laughs> <laughs> <laughs> mais c'est normal parce sama mag la sama mbokk la nit nag mbokkam la am. loolu tax moo ni tam ma la ma la ci remercier remercier bu baax nag mun nga maa bañ a sagal hmm. ba nga xam ne bu la saa saa yi ma la soxlaa wax dëgg yàlla nga nga taxaw et loolu tamit sag la ndax euh, comme ni ma koy waxee rek euh, buñ ne kii diw ana mbokkam ñu ni a nga ne euh, nga bañ a toroxal sa mbokk te wax dëgg yàlla sagal nga ma bu journaliste yëpp xam nañ loolu ku la jotul sax il nga jéem a woo dama hmm. grand bi la ñuy wër ak yu mel noonu hmm. donc ma lay si jaajëfal tamit ci sag goog nga ma may ndax ñun amuñu lu dul sag di remercier bu baax a baax tamit képp ku jàpp ci émission bi Euh, tey nag euh, ma am nag dëgg-dëgg euh, li ma sol nii tey sama sama xam naa dina ma ree ndax bëggul ku ko tudd ci biir tele mais foog ma defal ko ndaxte c'est une grande dame Mamati Meng xam nga ko ah Mamati Meng waa waa am am lu rëy lu mu def nag dëgg-dëgg ci mim réew te ñun ñii di ay ay rakkam nag di ñaan yàlla teg suñu tànk fa mu ko teg moo ñëw rek dal sama kaw nii defal ma jaune bu baax bi moom ak nag ak boroom këram di sama mag ku sori ci man tamit Ibrahima Sow ñu àndandoo kaw ma nag rakk yaay sunu rakk euh, dëgg-dëgg comme da ngay jàkkaarloog nag ak sa grand. waa daga na di la xool. ak bi quoi ma def jeune bi <laughs> xam nga ñu ne ma rek bu fi def bleu ñu lay ñu lay tuumaal dégg nga bu fi def marron rek dëkk digg bi ñu génn fii ci man ma ma leen fóon bu baax nag euh, euh, sama ñaari mag yooyu maamati meng ma nga foofu nag ci CNBS ba may nuyu waale tamit sëñ bu kooku tamit sama beneen mag la di nuyu nag sama xale yi may ànd rek yaa ngi noonu Mor ma yow laa lool ah alaaji Mor xaar ma ma yem fa saf na neex ak euh, jaru nga dëngalu euh, Pape Sylla euh, ñu gën ko xam nag ci Modou Mbaye xale yi ñoo koy tooñe naan ko Modou Mbaye ak ñu mel noonu dégg naa dafa génn clip moom Modou Mbaye Pape Sylla ñu nammuñu ko nammuñu Modou Mbaye ci bur buur géwél ndax ñu ngi nii ak moom di nuyu nag bu baax Lamine Baro yaa ngi noonu ci lumière yi ak nag Dunz Medoune Diouf moom nag dëgg dëgg ci làmb la gën a aayee moo tax sañu làq ko fee ci ruq ba ñu nuyu daal ñëpp ci montage ba euh, Bobo moo ca nekkoon euh, dimanche prochain incha allah face to face.